kon yow kon gëmoo gëmoo gëmoo noob nit a jàppul kon yow jàpp nga ni képp koo noob day jàpp. képp hmm. allahu rabbi dañ ci gis résultat hmm. am na ñoo xam ne ñu ñëwaat ñu jigéen ki nga xamante ne tey jii dafa bëgg borom kër wala muy nekk kenn bëgg lu mu ko wax mu def wala borom këram lu mu ko wax mu def boo ko noobalee mu jàpp. incha allah wala sax nga am borom kër mu laa ilaha illallah. loo ko laaj ma jox la. wala nga am jabar mu mu tëla. Mhm. incha allah bu ma bu ma ko liggéeyee. Mhm. loo ko wax ma def laa ilaha illallah. non ba koy man boobu tout tànk laa nekk daara bi di jàng. mi boole ñaari nit. boole ñaari nit. allahu akbar. dama naa dama naa ko foowantoo. seet dama dama damaa demoon ba sëriñ daara bi may jàngal sax. Mhm. danaan ma tere ndax dafa am ñoo dafa am jigéen ñoo xam danaa ñëw si daara ñi gis am problème seen sëy ma leen koy defal.